salaam salaam les amis de Oser Média ñu dem ba banlieue fekk fa un jeune boo xamante ni macha allah moom hip hop la boo koy xool c'est un musicien universel kooku lañuy wax ñuy wax Chérifou Chérifou nag mu nekk koo xamante ni macha allah li muy def mën na ko lool Chérifou nag nekk jeune boo xamante ni bu yëkkatee baatam man d'abord damay gis ni moom talent bi mu yor talent boobu la ki nga xamante ni euh, moom mooy. Euh, Clayton Hamilton yore ñoom ñaar dañoo xaw a nuroo ay timbre vocal mu nekk nag koo xamante ni macha allah Chérifou ñu gënoon ko xam mu ànd ak ki nga xamante ni mooy Job sa Brain ba ñu demoon seen groupe boobu ñu leen doon wee Chérifou ak Job sa Brain actuellement ni nag ñu gis nañ ne nag moom ak Job sa brain nekkatuñu di liggéey euh, ñoom daal seen studio bi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoo ko yor jusqu'à présent ñoom ñoo fay liggéey waaye instant bii nii temb Cherifou dafa jël yoonu boppam Job sa brain jël yoonu boppam waaye nag euh, wax dëgg yàlla musicalité li ñuy def mën nañ ko lool Cherifou moom bu woyee rek nga xamante ni franchement kii li muy def maîtriser na ko ci timbre Fada Freddy laa koy gis dafa woykat boo xamante ni il a une très belle voix il a une très belle voix te mi ngi def li nga xamante ni moom mooy musique donc kooku nag Chérifou tey moom lañ leen indil fi ci biir Oser media wax leen ni c'est un jeune bo xamanteni machallah toujours mi ngi ñafee def na fi temps passé benn dio ak ki nga xamanteni moy moy Pendo Guissé dio bobu dafa neex lol machallah man bokk na ci woyam yi ma gëna neex machallah amna wayam bo xamanteni aussi Jayla jëloon nako ko motax sax Jayla gaay mu jikko découvrir ci wayam bobu nga xamanteni mom moko moo Jayla reprendre ko fa la Jayla jaar ba tak mu nekk nak artiste bo xamanteni machallah il est inspiré et il a une très belle voix et il chante très très très bien moo tax Oser Média tey nii du ñu def lu dul seeti les meilleurs ki nga xamante ni mooy Chérifou Chérif fu nga xamante ni macha allah def na lu rëy ci àdduna muy def loo xamante ni macha allah lu nice la ci musique tey nekk waa Oser Média dem seeti ko xool Chérifu ak ak job bi fu mu ci toll lépp lu mu am rek ak fu mu ci toll ak fu mu toll ci programme yi incha allahu rabbi dinañ leen ko xamal kooku mooy Chérifu Chérifu nag nekkoon na ak doomu ndeyam Job sa Brian mais jamono yi temb nag mu ngi def carrière solo en tout cas Chérifu lu ci mënti am rek dinañ leen ko toppal di leen bëggee bu baax baax a baax di leen wax ni jàmm rek mooy am ci réewum Sénégal ndax macha il fait partie des meilleurs.